li gën a fës ci biir internet bi ami internet yu 24 actu ya bàkk ba jibatina dañu koy door rek mbas mekk tolluwaayam ci biir réew mi tey rek ci talaata ji yama ko fukki fan ak juróom ci weerum décembre atum 2020 Sénégal daan nay def lu toll ak 938 rek ci ay test ci biir loolu rek 70 daal ñoo ci daal di dikk positif maanaam amee jàngoro ji ci biir 70 yooyu lay am nañ ci 20 cas contact waaye amuñu benn yoon cas importé waaye am nañu itam 50 cas issus de la trans transmission communautaire mu mel na nag cas communautaire yooyu dafa daal di jur ak yokkute bu baax a baax 84 patients yi ñu hospitalisé woon wér nañ ba dinañ delluwaat rek seeni kër Sénégal nag daal dinañ amaat lu toll ak 20 nag cas grave mooy ñi nga xamante ni ñoo nekk ci diggante dund ak dee ñi leen di ñaanal rek yàlla suñu borom daal di fëgg rek seen bopp bañ mën a delluwaat rek ci seeni activité Sénégal nag wàññiwul benn yoon dese démb ci altine ji waaye nag bi mbas mi duggee ci réew mu Sénégal ak léegi Sénégal daal dinañ wàññi lu toll tolloog 17 216 rek ci ay cas ci biir loolu rek 16 243 yi ñoo ci daal di wér 350 ñàkk ci seen bakkan ñi ñuy saytu nag ci lal hôpital yi jamono ji ñu ngi toll rek ci 622 ministre bi rek di gën di ñaaxaar rek askan bi ñu gën a sàmmonte que mesure barrière yooyu nga xamante ni kër docteur digle na ko ngir ñu mën a moytu rek jàngoro ji lëmbe mim réew di covid 19 ci jàngoro ji rek la ñuy daal di dese ni ndax gis nañ ne rek jamono ji rek askan wi nag amee nañu njàqare lool ginnaaw nag bi mu fàtte mu di deuxième vague comme ni ñu koy tuddee ki nga xamante ni nag moo di Ngoné Ndour nekk patron SODAV moo daal di génn def ab vidéo ak ginnaaw bi gouverneur u Dakar rek génnee ab communiqué di arrêté lépp loo xamante ni rek da di ay festival ak yu ni mel te ñoom artistes yi rek ku leen xam-xam leen ne dañuy def li nga xamante ni moo di à soirée ba tax rek Ngoné Ndour nee na sonn nañu doy nañ ba tax rek mi ngi ñaan nguurug Sénégal rek ñu daal leen di jàppale artistes yi ngir ñu mën a rek dooraat rek seen soirée yooyu nga xamante ni daan nañ ko am te nañ ko daan amalee ndax nee nañ lu tollook un an ngi nii def ñu dara nee nañ nag ba mbas mi duggee ci réew meeg léegi defuñu benn activité ñoom artistes yi ba tax rek ñoom daal sonn nañ lool ba ku leen jàppale rek ñu jël rawatina rek li nga xamante ni génn waat nañ ko mu di dogal bu bees bi di tere lépp loo xamante ni rek da di ab dajaloo kii ñaanit li nu mel nekkul kenn ku du leader du cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et secondaire di Dame moom it nag nee na li nga xamante ni rek moo di décision bi état jël rek jëmee ci li nga xamante ni moo di fête de Noël yi arrêté gi benn yoon bu sañoon daal ñu bàyyi élèves yi ñu jël ko daan amalee ndax nee na taamu nañ ko di jël ba buñ ko jëlul bu nekkee ci classe yi mel ne comme nekkuñ ci classe yi ndax taamu gi ko jël fête Noël yooyu lee Dame Mbodj daal nee na na nguur gi rek bàyyi xale yi ñu daal jël feet yi comme nañ ko daan jëlee waaye gisul benn yoon rek la fait que ñu koy arrêté jamono ji ngir feebar bi di ak euh, covid 19 ki bëri loolu ay avocat jamono ji nekkul kenn ku dul Assane Diouf Assane Diouf nag ginaaw bi ñu ko jàppee ndiki mois de juin bi ñu génn ngi def doon insulté ki nga xamante ni rek moo di njiitum réewum Sénégal ba tax rek démb activiste yi daal nañu amaloon nag am ndaje ak taskatu xibaar yi ndiki altine ji ñu génn lañ fa doon xamle rek moo di dañoo bëgg ñu may ki nga xamante ni rek moo di Assane Diouf lii di liberté provisoire ndax gis nañ ne rek santeem rek mayutu ko mu daal di toog foofee ca prison boobule te gis nañ ne nag nee nañ bi ñu ko jàppee ba tey ubbi benn yoon rek dossier ba ki nga xamante ni nekk moo di caata Guy Marius Sagna ak ña nga xamante ni ñoo bokk rek ci yooyu le kuréel nee nañ daal dañoo bëgg rek ki nga xamante ni moo di Assane Diouf daal di am li nga xamante ni moo di liberté euh, provisoire yemu ca moom caat bu yaana rek na Assane a jàpp rek moo ko daal yëkkati ci seen ndaje boobee nga xamante ne nii amoon nañ ko ko niki démb rek ci altine ji ngir di sàkku liberté provisoire ci seen xarit boobu lee di Assane Diouf kawteef a ca diwaanu Kër Masar benn maçon bu wuyoo ci turu Alioune Dieye moo daal di rek faat patron bi di Maguette Kayre lam ko faate rek mooy nee na patron bi daf ko daal di bett rek muy sàkku sërëm ba loolee tax rek mu metti ko lool moom Alioune Dieye ba mu yëkkati rek ay paaka rek daal ko koy jamate ba ca la daal di mujjee rek faatu moom Maguette Kayre moom lee ba noonee rek ci la daal di faatoo Alioune Dieye rek dina fixer son sor le decembre décembre bii ñu dët ma lépp loo xamante ni ruusandiwaat na ko rek jëm ci mboomu le mbir dinañ leen ko toppal rek ci suñu yeneen a jotaayu xibaar ñu daal di woy ni rek wax ci coow li nga xamante ni meeku woon nañ ko ca Las Vegas ci euh, ni moo di Viviane moom Aïda Samb nag daal na ci indi nag ay leeral nee na moom li tax ñoom waxuñu ci ñoom artistes yi moom fekkewu ko nee na bokkuñu woon fenn fi mu nekk bi coow li am nee moom rek ci réseaux sociaux yi daal la ko daal di gisee nee na li nga xamante ni nii rek moo Gates mi ngi koy def muy lii di bale moom nee na bu ko mayoon un milliard it du tax mu sëgg ci suuf di ko for ndax moom nee na surtout Samba Jabare Samb la am na yoo xamante ni daf ko jommale boppam nee na nag wërsëgam la te nee na loolu buñ ko furutoon jox ko moom du ko mës a jël nee na rek li tax àdduwul ci coowu moo gétt ak Viviane fekkewu ko benn yoon te nee na loo fekkewul daal mënoo caa daal di wax ki yëkkati yooyu la kàddu rek moo di Aïda Samb dañuy daal di wax rek bi di Sophia Sophia nag ñu gisoon ko rek jamono jee mu doon def rek ab interview seqoon ko ak ki nga xamante ni rek moo di liiru jaan ba doon fa wane rek ay image yu doy waar ginnaaw nag ba coowam loolee amee moom Sophia dafa daal di génnoon di baalu rek askanu Sénégal ngir xamal ko rek ñu baal ko waaye nag teewul dafa daal di génnaat defaat beneen mbir Ouzin Keita ba Ouzin Keita doon làmb li nga xamante ni rek moo di a waxtaane ci réseaux sociaux ndax rek général def seen liggéeyam déet en tout cas rek commentaire yi ñu koy daal daal di sàkku ngir bëgg rek ñu def seen liggéey ndaxte nee na lii moom dafa doy waar lool du samay kàddu internet yi ñoo ko daal di xam ne rek i commentaire ak ginnaaw rek bi ñuy gisee boobule ab vidéo dañu koy daal di jeex rek l'animatrice bii rek di Mathika Thér Dieng nekk foofeere ca TFM ginnaaw rek bi ñu ko gëjee gis rek ci écran yi ñu xamal nañu nag ne Mathika Thér dafa am doom bu góor niki àllarba foofee rek ca New York bu ñu sukkandikoo rek ci Snap lam xam ne rek moo di Mathia ak doomam ji ñi ngi am tan bu baax a baax lii rek moo fi gënoon a sa ami internet yi dig daje rek lay doon ba ëllëg ak jàmm